kon boog du bàyyi ñuy dagg ensemble bi kon ane bii di ñëw lan la sénégalais yi di dundee liggéeykat yi balaa ñoo wax toujours dañoo war a xam li nuy wax ndax réew mi ñun ñoo ko moom benn doomu aadama du tax nu jël senegal def ko upside down est-ce que Sénégal xool nañu li ñuy dund actuellement nii yéen ñëpp laay waxal lii réew mi bu daanoo dem kaawo ñun ñëpp dem kaawo ah ñun ñëpp la muy citoyen yi bu juddoo Sénégal di citizen du Sénégal bu senegal demee down du président Macky Sall mooy down dem down yàlla teral na ko ñun ñooy yóotu lu nu am ñun ñooy yóotu lu nu bëgg pour suñu réew mi nañ leen bàyyi xel senegal Sénégal bullshit moo nekk fii nonsense nonsense moo nekk ensemble dañoo bëgg nag réew mi ñu bàyyi xel ci sunu réew mi arrêté politique beeg ruube gi dañuy taar réew mi dañuy bloqué tey circulation bi waxu nu benn dëgg ñoom fi président Macky Sall di génn duñ ko mës a xam sénégalais dañuy rythme mënunoo rythme yi nu kenn man li ma fanaanoo yow munoo am xam-xam ba xam ko mënoo sànni say pertaaw ba xam man li ma fanaanoo li ñuy coow lépp keroog ba ñu Macky Sall woowee ñun ñoo ko njëkk ni noow mu ne bàyyi naa sénégalais yi dañu xam li ñuy wax dafay dem troisième mandat mu génn na defuma ko dafay tas ensemble bi tasul dara dara la tasul li doon xaar na gis nga fii ku fi bindoo ni tama ñu tëggee la ñaari bu mba dagg say say waaye dañ lay daggati laa wax lan moo xew Sénégal yéen nag dangeen ngeen cee am cër lii ngeen di def nii ci jaamu yàlla la bokk su ma waxee loo xam ne safaan la mu wóor leen ni bu génnee dina am ñu mu naqari da ngeen war a dagg parti boobu nit matut mais bu fekkee ni dama wax loo xam ni tey ji waxee naa ko sama xol mu xam ne bu génnee dina naqari doomu aadama yi ngeen génnee ko yéen yéen a ngi taar réew mi bokk ngeen ci réew mi da ngeen fi am doom da ngeen fi am sët li xew taxaw leen ci yéen journaliste yi pétrole la ñu am pétrole li koy taal lan la almet war ngeen ko bañ yéen ñëpp di siisu comme ni may siisoo du dama ànd ak président Macky Sall damay bàyyi président Macky Sall def loo xamante ni arrangé wul réew mi man du ma doxee noonu Amérique laay dund United States of America mën naa sama bopp suñu tasoon ensemble tey jii noo ma frege ñente damay dellu dawal sama taksi lét jaay di yor xaalis bu ma dul yor ci ensemble bi kon boog lii may wax njëriñu senegal yëpp la dama leen di dénk benn kàddu bépp journaliste bu nekk senegal nii bu nit waxatee safaan get it loolu la américain di wax daggal loolu parce que nag jàmm lañu am boo lu ko rawoon Afrique xool Liberia xool Congo ñoo leen tane boo génnee dem Gàmbi gi rek xam ni senegaal baax na li ñuy dugal suñu bopp bii nekkul ci suñu bopp suñ ne Sénégal dañoo xiif ma ne waxu leen benn dëgg bu ñu yeewoo bu ñu amee sum bi dañ koy teg naan nee nañu bés bu ñu toogee président day tolloo yàlla tollalewut am na ku ma ëppale am na man ku ma ëppale man ñii ngeen di liggéeyal ñu yor seen siit yi ñaan ngeen yàlla bu ëllëgee ngeen am seen yëfi bopp bu leen kenn dugal bokk ngeen ci ñu téye réew mi bokk ngeen ci ñu téye réew mi fu mu nekk Sénégal Macky Sall ngeen doon wax troisième mandat mais jeex na nee na defatul xanaa kon réew mi war na mën a dal xanaa réew mi war na mën a am jàmm te nee naa da ci am wàll yéen ñii ñëpp nag dama leen a bëgg a wutal audience ci président Macky ñu toog ñu wax ak moom journaliste ci dëkk bi yëpp influenceur yëpp ñoom la taajagul ñu wax lan mooy seen xalaat ci réew mi ñu juddoo doon citizen maa ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm salut